Thiès Thiès ci Zik FM di journalu faits divers yi.
suba su ne suñu tere dina jotee altine ba àjjuma Thiès di xew-xewu jamono ci biir quartier yi.
Thiès di ay faits divers yu ngeen di nettalil seen bopp yéen ñi suñuy auditeurs.
Thiès ak Ahmed Aidara.
asalaamualeykum. nga ne lan yow. alaaj fayal rek. ah waaw waaw wax nga dëgg. Fatou Sow Caaroy Gaar. nga ne moo jaawale saak ak. Amadou Seykou Ba. Amadou Seykou Ba moom carte d'identité bu Guinée la yor. ah nationalité guinéenne Amadou Seykou Ba. kon ñoom ñaar ñii kon te te ñoo leen wax ñu ñëw fii ci rajo bi daje rek. Amadou Seykou Ba ak Fatou Sow. portable yi portable yi nii ñu dugal ci mbuus mi ci saagu Amadou Seykou Ba la ne babal parce que du ñetti portable lii lan la Sidi Ndiaye lii oto Renault Mégane la couleur bu weex RC 18 72 X hein nee na place de l'Indépendance lañ ko sàccee ay 10 heures ku gis oto bii na woote ci 77 544 83 10 waaw waaw président la sagal de dëgg la de dëgg la de bon këyit yi alaaji dañu koo for nee ne buubu tànjan carte d'identité carte banque carte étudiant waaw bu dee bu dee nen ne bu dee nen ne buubu tànjan mi ngi déglu na ñëw fii ci Zik FM du noonu alaaje waaw waaw voilà alaaji sëriñ maar mu sëriñ Sidi Maxtaar daa réerle ñetti dara yu ngand diggante Thiès ak Ngaay Mexe ay darab yu ngand la yu fort yu am valeur képp koo xam ne gis na leen daal na woote ci 77 644 86 31 wala 77 518 67 52 du noonu voilà ji maam mbay moom maam mbay maam mbay moom nee na fukki nappkat ak ñaar yu Rufisque yi réeroon depuis daanaka ñaar fukki fan ak ñaar yegsi nañu waaw waaw mi ngi nii yónnee ma message vingt-deux jours vient d'arriver nee na mi ngi ak ñoom au quai de pêche eh eh wool ma Mame Mbaye yow kii simer baal maa nga wool ma Mame Mbaye ñii la waaw voilà voilà wool wool ma leen simer maa ngi lire communiqué mais wool ma leen ñoom sax laay njëkk a dugal waaw ñoom laay njëkk a dugal de woo leen en attendant ma lire lii waaw dëgg la sa mère bi ma kee ko sagal maître Sali Ahmed daa daa am ku jaawale samay bagage lundi si ay timis si benn njaga njaay Njaasaan waaw maire nee na nga may ko ok ci yoonu Njaasaan saag bu am audience saag bu am ay mbubu saabu ak vingt peeru dàll ku ko gis na woote ci 77 306 52 72 kii nee na c'est un test à passer s'il te plaît merci gros bis merci ñu ngi lay xaar nee na dafa am benn test bu mu bëgg a jàllale quoi s'il te plaît merci gros bis gone yi dee doom dañoo doj ah lu yaas bi xanaa da cee war a gaaw de yée maire ba nee na ba nañu ay ñin fuñ jëm lan la waaw lan lañ def ah yaa bi mbag nag sa talaa kurus ah kii nee na kii nee na mi ngi tudd Fatou Seydi am na jëkkër am na ñaari doom je fais un message sollicité auprès de oh message dafa dagg kii nee na dafa for moom benn mbuus bu weex wu def ay yére robe basin complète lan âge quatorze ans laataa tabaski képp koo xam ne daal réer li nga mbuus mu ni mel wooteel ci 77 135 62 58 dégg nga loolu waaw kii itam yor mbuus mi itam na def attention ci ki koy woo nit mën na ko woo di ko dëbb kii nee na dafa réer le daal ay caabi ay caabi brelong yaay bu Paris ci benn taxi bi mu jëlee woon kañ la woon mardi 21 démb la université Cheikh Anta Diop un stop à fenêtre ah ci stop bi fenêtre Mermoz ok ok ok ok demaat kon ci arrêt bisis ba Estelle Mermoz ba léegi ni le képp koo xam ne daal maanaam yaa ngi déglu li le nga gis nag loowu caabi yi daal na woote ci 77 099 03 86 kii moom nee na dafa réerle benn caabi oto marque Renault espace ci benn pochette bu ñuul lycée Jean de la Fontaine ah ku ko gis nag dama woote ci 77 615 615 79 37 wala nga indi ko fii ci Zik FM Omar Diop dafa réerle carte résidence espagnole carte sanitaire espagnole ak livret ak ay lan ay xasida ku gis na woote ci 78 165 29 40 sama walis bu ñuul am bande bu rouge moo jaawale samedi Touba laa jóge woon wàcc jàmm gën ku ko gis na woote ci 76 835 95 80 Alassane Dramé dafa fàtte benn portefeuille bu ñuul wu defoon ak carte d'identité carte visite ak cent quatre-vingt-dix mille alaaji loolu salaire la lu ëpp salaire la ci benn taxi ah képp koo xamante ni nii gis na ko daal ci benn taxi diggante direction générale des douanes koo gis daal na woote ci 77 548 72 73 fas bu ñuul am nag ay mandarga ci karkanam geek ñaari tere ci côté ndeyjooram bi ak it ci côté càmmoñam bi saret bi nag ma nga réer ca Colobane guy murit ku gis fas woowee ne nu dimbali woo ñu ci 77 182 81 38 sumer ana ana mambay fas wi fas wi daal nee na am na daal ay mandarga tas tas ci kanam gi ak ci côté ndeyjoor waaw koy njëb ak pell lañ koy wax ah ku la fasu fasu ñuul lañ wax de. ah mëngo la ah fasu góor a de du wajande du wajande. c'est jo waaw kay waaw waaw kay waay alaaji alaaji man boo fi nekkuloon fu ma jëm alaaji dégguma olof. la ilaha illallah kii nag nee na moom dafa réerle moom ci benn taxi break la ah 22 ah booru lan 14 heures rue ñaata 19 angle 26 benn sachet wu defoon ay kurus. ak ay xasida ak chargeur téléphone Nokia ak extrait ak ay extrait koo gis nag na woote ci 77 396 84 28 dégg nga tubaab nee na téye rek nga gëm dégg nga kii ne téye kii nee na moom dafa réerle moom tamit benn caabi marque lan la oto bi Hyundai ci benn taxi diggante Asalem Sumer ak Kassor ku ko gis daal na woote ci 77 608 51 14 Alaaji Alaaji. waaw ñii nga xam ne dañoo réer booboog léegi ñaar fukki fan ak ñaar toll ci fukk ak ñaar ci ay nappkat ñu xamal ñu ne feeñ nañu. alhamdulilahi rabbil alamin alaaji bakkan dafa foor xoolal benn bakkan bu jógee ci kër na muy def ca koñ ba waxuma na muy def ca kër ga de ca koñ ba ah ana maa mbay
waaw Ahmed maa ngi lay siyaar ñu ngi delloo siyaar waaw maa mbay yow nga ne sama gars yi ñoom fan lañ feeñee ak kañ lañ feeñ waaw gannaaw nag fukki ñaman nga sax ñaar fukki fan ak ñaar ñu nekk ko ci biir géej réer ko mër seeni waajur jaaxle ñu doon liggéeyandoo jaaxle naa tumbi na di teew mu nataal capitaine capitaine gaal gaa ngi fukki mool la ñuy woon ak ñaar ngeen réer lépp biir géej ci nekk di wax naan ñi suuf nañu ñi naan jàpp nañ leen ñi ku si nekk ak la nga wax seeni mbokk yi bu ñu ñëwee fekk leen ci si keege njaaxare la ñu nekkee woon tey pënd ba wuri na fan ngeen nekkoon ci biir géej waaw ñun ñun ñun dañ doon daw di ñëw bi ñuy ñëw ñu ñu paal bi ñu paalee ñu gis benn saxaar ñu tafa moom ñeenti fan mais saxaar gi bi ñu koy di tamaane pour mu mën ñu woote wala mën ñu lekk daf doon saaga daf leen doon.
benn benn benn benn saxaaru saxaaru débarquement tànkee la daal saxaar gu mag.
ah Mame Mbaye gaal gaal gu mag. waaw waaw.
euh, portable bi nekkoon na ko soril gémmiñ gi tuuti.
waaw waaw waaw.
acca bisimilah.
waaw waaw gaal gu mag. waaw gaal gu mag ñu ñëw taxaw si moom nekk ak moom fenn suñu temps fort def fa quatre jours luñ ko wax mu saagam. benn boto bu mag waaw benn boto bu mag. kon biir géej loolu ngeen koy dund day saagante ñoom. waaw waaw. saa boobu sonnoon ngeen ba bëggoon ko leen jàppale. waaw son noonu bëgg bëgg mu pour mu may ñu def appel suñu defee appel joxe programme yi fii. ñoom daan ñu jël si foofu ñu nekk yu am problème. léegi noonu lañ leen abon abandonné bi. waaw ñu abandonné di ñu saaga gannaaw gi ñoom ñu jóg ubbi ko tamit taw bàyyi ñu foofu ñu nekk buñ demee ba xam nag fi mu toll nii ñun suñu pexe mool rek moo si def ñu def suñu ay pexe yi nga xam ne ñun moo ñu xam si géej. muy wiir wiir xam nga terme yooyu dafa xaw a technique trop ni ñu koy waxee. wiir mooy lan. wiir maanaam day jël bâche bi takk ka suñ ko takkee am na nu ñu koy orienté ngelaw li duñu yóbbu. waaw mu xaw sëri ma motoor. boobu moom ñu ngi woon ci waaxi waaxi Sénégal. non ñu ngi woon ci waaxu Bissau ndax bi ñuy bi ñuy pan parce que dugg si nañu waaxu Sénégal. mais comme ngelaw dafa bare te comme wiir doo yóbbu sa bopp kii moo lay yóbbu affaire bi moo lay yóbbu kon doo mën orienté sa bopp fi nga ko bëggee dem. ñu xam na fii Kélébélé mi ngi fi te man xam naa Kélébélé ma ne xale yi poids dem teewlu ñu ñu ñu ko nekk ñu dem foofu. fan lañ leen mujjee gisee si mujjante bi. waaw non man man maa woote. biñ demee ba teer Kélébélé dama teer man demee ma gis foofu ay nit ma expliqué leen. dégguñu soxla moom ndax ñu ay kiloon làkk yooyu suuf man dégguma yooyu nag. Kélébélé Guinée lan. waaw mi ngi Guinée Bissau daanaka dama xaw a jege frontière Sénégal Guinée bi nag jege nag. ma expliqué tey ñoom après gannaaw mu am benn waaye bu ñëw. ma waxee mu dégg li may wax ma wax ma ne ko ñun doon paanoon mu ne ma yéene gaa bi paanoon ma ne ko waaw moom man déglu naa ko rajo ma ne ko waaw ñun mu téenu foofu bi mu téye mun na léegi pour ñu mën am réseau foog ñu dox trente kilomètres ma ne ko man bu dee mille kilomètres sax man naa woo samay mbokk rek ñu xam ñu xam waaw xam parce que lañu ànd man ak moom ma bàyyi ba xale yi ñu commencé dox buñ doxee ba ci île boobu nag fekk man maay wan a carte crédit bi may dem yóbbaale naa sama carte crédit ma dugal ko ci laa woote fii nag waaw wax leen waaw Mame Mbaye.
man bi ngeen doon dem waaw waaw Ahmed waaw ma ne bato boobu nga xam ne ñoom ci lañ doon jéem a langaamu pour mu dimbali leen ñu leen di saagaal laajal ma ko ba xam bato boobu ay sénégalais lañ wala ay étranger.
waaw mi ngi lay dégg Ahmed. waaw peut-être ay Sénégal ay doon nañu waxanteeg ñun. Sénégalais ay Sénégalais yu wolof wolof yu leer nañ.
ah bon.
waaw wolof waxante ne ñu looloo jënd saaga. bu ñu gannaaw ñu naan jóge leen fii ñu leen jóge suñu bakkan wala ngeen woo mari mu ñëw. te ñu xam ne yéen yéen a ngi ci danger. waaw waaw bi ñu demee ba xam na ñun ñii sonal nañ leen. ñu jóg parce que ñun mootuñu daw ndax moto yi pa paanoon yaa ngi paanoon. ñun jóg budd ba tamit daw bàyyi ñu foofu ñu seet bi ñu seetee tourné si ànd xale yi nag ne lañ jóg def suñu ay pexe. ne def suñu pexe ba dugg waaxu waaxu Bissau bi te xam ne xam ne leen moom maanaam barab boobu fan la war a. te ba tey ba tey moom xàmme naa mais xamuñu ko parce que ñun ñun mënuñu si yéeg ndax xàmme ñu si poste yi loo taxaw duñ saaga. si poste yi dañuy nag seen seen biir kii yooyu duñ saaga. kon donc yéen yéen noonu ngeen naroon a. saa yi noonu man suñu deewoo ñun ñun sacrifié parce que ñun waruñu am benn problème ndax ñun gis nañu secours. yéen ngeen di ngeen di dem seen gaal gi lépp lu nekkoon ay matukaay jël ngeen. jël nañu matukaay yëpp am gaal gi amul problème problème moteur la gaal gi amul benn gaal gaa nga ne amul benn problème gaal gi damul fokkul bënnul moteur yi yoppaan te moteur nag weñ yuy dalante la. weñ yi dalante weñ yuy dalante la ñun liggéey ñu moteur. waaw gaa gi nag ma nga ne paxul bënnul dafa jotu ko. te ñu jël suñu ay matukaay ba bu ngelawee it am nañ technique yu ñoo def. ba waaw ma gaa ne gi am benn problème. waaw kon Ahmed. ñoo ko dégg lépp waaw waaw Mame waaw.
Mbaye.
waaw.
waaw ma ne ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom damaa bëgg maanaam mu expliquer ñu réer gi nan la fa demee ba xam ab vague ci boppam moo dal ci gaal gi ñu jàllaañoo wala ñu ñu jékki-jékki rek seen i machine ñun dañu- seen machine fay dañu napp bay ñëw.
waaw ñun dañu napp bay ñëw.
boobu bay boobu fan la ñëw.
woon boobu ci ban géej la woon ci géej bi ñun ñu woon fii Conakry bi.
ah Conakry kon yéen Conakry ngeen demoon waaw Conakry la ñuy nappee bi ñu ko nappee bay bay bay ñëw.
waaw bi ñu ñëwee bay dugg bu baax bi sax benn bi benn bi paan ah, benn moto bi paan ñu si benn bi teg nee beneen bi def nga xamante ni maanaam moo si nekk ñu commencé dox ak moom. bi ma doxee ba sentir ni moteur bi commencé na am problème.
waaw ci laa dem gubali bot ci boto bi bi ma demee jom ma ñëw tafka ñu dàquñu ñu dem tukki ñu ñëwaat ñu dàqaat ñu ñu leen du ñu dem parce que papa bële moto bi mi mu commencé final nii am na problème ok waaw ma ne waaw mais est-ce que ñooñu nekk ci bato bi yow tey boo leen doon dox ba daje ma ne ñooñu nekk ci ba- bato boobu doon leen dàq ci biir ndox mi waaw est-ce que ñooñu boo leen leen tegoon bët yéen tey jii yéen yéen est-ce que di ngeen leen xam non man man moom boto bi su ma ko gisee xam naa boto bi mais nit ñi si nekk wax dëgg yàlla xamuma leen mais boo jàkkaarloo ak ñoom laa wax di nga leen xàmmee waxuma nga xam non leen boto bi moom danaa xam mais du ma xam nit ñi moom ah doo xam nit ñi non non non non waaye léegi nag ñoom ñooñu jëf jooju ñuy def yéen fi mu nekk nii da ngeen di da ngeen di porter plainte wala da ngeen di bàyyi noonu rek ah waaw c'est-à-dire nguur Sénégal moo war def bépp bato boo xam ne mi ngi lay jox licence accord yi bokk ci.
waaw képp ku gis gaal loo ca bu la woo fiyaale da nga war a ñëw sinon kon boo ñëwee kon da lay da lay da lay teg ay daal. loolu dafa war bokk ci licence yi nga xam ne Sénégal da ko war a maye képp ku gis gaal parce que Sénégal fii ay gaal loo ca dong ñoo fi nekk. kon loolu dafa war bokk ci accord yi ci ci ci maanaam ci règlement yi nga xam te ni maanaam dafa bokk dafa war bokk ci licence bi. ndax ñun bu ñu teewoon moom bato yi ñun sacrifié ndax ñun it yàlla dimbali nañu ba ñun am na jëm nañu wut pour na nga am pour pour ñu may ñu woote sax.
waa léegi ma ne waaw waaw bu ñu wootee woon rek ñun daan daanu jël si amuñu problème boobu.
waa capitaine waaw.
ma ne yéen fukk ak ñaar daal kon kenn feebaru ci kenn amu ci dara daal.
ah non non feebaru nu moom teeloon ne sonn nañu te sonnoon nañu ndax il ku toog trois jours lekkoon naanoo sonn nga.
li ngeen li ngeen yaroon ci dund yëpp. kon lépp a jeex dund gi morom géej gi la noonu naan di lakk jën yi dañu ñu wan a jën. ndox mi jeexee ba tàkk te moom trois jours lekk ñu naan naan ñu ngi lekk mais amuñu lu naan ndox mu géej gi la ñuy naan.
ndax léegi ngeen doon def fan la ngeen doon dégg nga yoon tàkk di di di lakk di tàmm ci bant yi di lakk.
da ngeen ban ban gaal.
waaw bu noo bant yi nekkoon si kii yooyu ak beneen bant xam nga gaz gaz dana am ay bant yoo xam te dafay nekk waa waa gis nga man secours waa dinaa ndax gaz yooyu jeex waa dina ak boxam géej gi ñun après nii après da ngeen di jugal hôpital xooli seen bopp de.
ah waaw mën na si nekk de mën na si nekk moom ndax ndax naan na ndoxam géej ba sonn moom waaw ah
Ahmed kon yaakaar naa sant rek ne capitaine sant rek. capitaine waaw santal yàlla.
Ousmane Gueye Ousmane Gueye fu mu nekk sant sant la def ay waajuram it sant la ñu def jiw bi mooy li nga xam ne ñoo nekkoon ci maanaam gaal gu mag googu it ñoom it sant la ñu def keebaa ngi nii seen mbokk yi ñoom nit ñu ngi ñu ngi taxaw ndaxte lii rek lañ doon xaar parce que jiitoon nañ mais nag am na li li jar a wax yeneen si nit la yeneen si nit ci la boo gisee sax mbokk même boo ko xam ne xamoo ko sax da nga ko war a mën a dimbali bu fekkee mu nekk parce que dañ koy mooñaale si nit ki Sénégalais nag ah.
loolu dañ ko dañ ko war a mooñaale si nit yaakaar naa ne ñooñu ay seen nee na ay sénégalais lañ ndaxte dañ doon wax liñ doon wax dégg na ko gis seen ni moroom yi noonu ay tubaab yóbbaale leen di.
waaw du leen ay tubaab ke dañuy jël yóbbu man loolu ma jaaxal Leen di sénégalais fourni.
nu noo mënee gis moroom sénégalais di di ko taxaw mu nekk Yow.
ay mara naka mel noonu côté riis la riis la ay riis lañu côté riis lañu ay riis lañu
dañ dañ doon wax Sénégal riis la mais mais day yëpp ay mën loo mën loo ñu ñoo la lakk wolof mën loo mën ay riis la maa mën loo mooy comme seen kii yi seen mane yi mane yi mara ay sénégalais waaw mane sénégalais ngi si moom mais boobu ay côté riis lañu waaw kon am na xam naa la wax di yëpp Ah, di yëpp kat si si si émission bi de jërëjëf ñu jël trafic waaw.
li ñu war a li ñu war a wax maanaam dafa yaat du ñàkk de dinañ ci dellu si.
Dellu si kay.
maanaam suñu suñu édition yi yaay dellu si waat Journal 12 heures, tamit li nga waaw.
xam ne moom mooy Sen TV tamit.
waaw lépp lu nekk ni image.
waaw kay gerte waay.
bi lépp ni mu koy dundee.
waaw kay waay.
loolu yëpp ci ci lay xewee rek Ahmed.
jërëjëf dinañ ci dikkaat dinañ gën a yaatu wax dara dara.
waaw waaw tes kay exclusivité merci merci Mame Mbaye merci capitaine Ousmane alaaji lii lan la xoolal li waa ji wax tey ci journal bi rek bu dee libanais nga wala français wala yeneenu xeet mën ngaa nekk milliardaire waaye bu dee ab sénégalais nga ñu ne la mënoo koo ne lii preuve la xoolal buur aayul tak yaa aay nee na bu bato ba bato russe la waaye seen marin yi ay sénégalais leen ñoo ñoo saaga di ñu wax ni topp leen fii ci yow ab gaal goo xam ne daa réer nekk ci biir ndox ñii réer nañ seen i mbokk alaaji daanaka ñaar fukki fan ak ñaar ñii xama seen i mbokk xaw nañ leen a saraxal ah ah gis nga bu doon nasaraan yi ñoo yërnu dinañ leen for borom bu doon borom dere weex yi yërnu nañ leen for de. Hein?
Billahi lii may télécharge yooyu juste moo coïncide ak li ngay wax. Seydou Xutub.
ah Loolu xam-xam yëpp xam nañu ko.
ah
Voilà. Nee na ah
booy dund yow rek sa dund bopp.
ah sa dund bopp yow rek. boo koy dund. bàyyi waxee lu lu sa bopp fàtte ñeneen. sa dund amul benn valeur.
billaahi amul valeur.
nee na sa dund balaa muy am valeur. sa dund amal njëriñ kaneen. ndax yow la nga mën sa dund yàlla la ko jox. kon sa dund bu mu am valeur day fekk nga amal kaneen njëriñ.
pour dund ba am valeur.
moment bi ngay waxee lay téléchargé muy tombé.
proverbe boobu juste bàyyeeku ci Seydul Xutub.
Seydul Xutub.
billaahi donc min di gaa yi jàng yëpp xam nañu ko.
yow li tax ñi- li tax ñenn ñi naan li tax ñenn ñi naan yenn sénégalais duñ dem lii la.
ñoom alaaji dem duñ dem.
bu doon ay nasaraana leen yër nu ñu nekk foofu ak seen gaalu loo ca googu for nañ leen waaye sa moroomu sénégalais kenn musu koo gis.
gaalam réer. ñu toll ci fukk ak ñaar ci ay bakkan nekk ci diggu ndox seen moteur paan.
non dafa ñaaw.
mu leer na leen ni ñii fi mu nekk nii balzac lañ gën a jege nga yor bato wu ni wéngi wéngi aaral ñoom waxuñ la sax yóbbaale ñu waaye may ñu rek contact ba ñu woote.
dañu leen war a sanctionné de.
mais loo mais loolu dafa war a xanaa xamoo loolu dafa war a bokk ci accord yi ñuy signé ah est-ce que d'ailleurs bokk ci sax xanaa man kay gaw ma ne nag xanaa loolu nguurug Sénégal ga war na koo sàgganee noonu dem ba digg géej. ay bateau yu jógee ca bitim réew ñëw di napp ci suñu géej gii ñuy signé ñin ay mbir. te waxoo leen ne leen doomu Sénégal wa- loo leen gis par force na ngeen leen for yóbbu wala ñoom bu ñu jëlee seen i numéro bu ñu leen jotee non seulement nañ leen dàq ci suñuy wax contrat bi danañu ko dakkal mais di ngeen remboursé.
non sénégalais kay mën doo comprendre ça non assistance à une personne en danger la.
doo comprendre lii nit mën na ci tëdd ñaar jàpp juróomi at. fukki bakkan ak ñaar nga nga bàyyi leen noonu ci ci ci biir ndox mi.
jaaduwul te boo demee kat fañ dem fañ dem tëdd ñoom xam naa ñu ngi naan ñooñu dee xam naa gaayen war nañu Benn woon dee, waaw.
te xam nga ñi yàllaa leen suturaal alaaji yàllaay xool lu ko neex mu koy def nit suñu bu démb bi ñu fi wax ñooñu bis rek lañ am ci ndox faatu ñii am ñaar fukki fan ak ñaar ci ndox yàlla ne leen du ma leen rey moo tax ma wax la li ma la wax ba rek démb yaa ngi naan wopp ak dee jigéen billaahi ak a sorante ku ñu sax yoon bokkuñ dara seen ñaari bàyyi seen seen seen ñaari bàyyi xëj na ñoo bokk bàyyi wala ñoo bokk ndey waaye bokkuñ ndey ak bàyyi de si ti ti ti ti ti ti ti nit ku ñu la soxor hein barki yàlla mii billaay sénégalais billaay sénégalais alaaj alaaj sénégalais am nañu soxor de wallaahi non am na ñoo xam ne dañoo soxor
wala kii nee na nee na maamam daana wax ni bato lu mu xat xat xat xat anta na yóbbu nuyul ma sama yaay billaahi wallaay taala amet di dugg ci bato man ko amet boo demee nuyul ma sama yaay xaj na ca bato ba mais ñii sax santuñ leen ne leen fat lañ ñu de nuyul ma sama yaay jooju lañ leen doon wax.
Waaw.
àll leen ñu rek ñu téléphoné.
téléphone kon ko yóbboo mooy leen.
nuyul ma sama yaay ci Waaw.
waa ji kay moom lu am solo la wax ñun ñu jàpp leen di leen saaga. nit ku ñu la soxor. non alaaji alaaji non alaaji am nañu bon de.
mais mais mais est-ce que li ma ministre bi wax dëgg la de est-ce que duñu ay malfaiteurs yi doon napp ci napp boo xam ne jaaduwul te comme nappkat yi ndaw yi dañu mus di dénoncer façon napp waaw bato russe waaw yooyu waaw ñu nekk ca bato ba xanaa.
Est-ce que- ñu bañ ko leen yoole.
bëgg ba- bañ ko leen yoole ñu bëgg leen sacrifier ñoom c'est fort possible non alaaji daal gis na ñooñu daal alaaji ñooñu daal duñ ñu baax.
Duñu- est-ce que duñu ay malfaiteur daal Euh, euh, euh, malfaiteur moom mi ngi tàmbalee rek ci bakkan buy rot nga ne doo ko jàppale.
Malfaiteur.
ñoom kay ay malfaiteur lañ.
bon.
léegi nag ba xam moom sa waay seen malfaiteur joojee ndax dañ caa boolewaale leneen lu ca bokk lam déet waaye ñoom kay wane nañ ne duñ ay nit ñu baax.
wallaahi alaaj lan moo tax nit ku ñuul soxor alaaj lu wax sénégalais soxor.
dé- dégg nga li Mame Mbaye wax bu doon tubaab du leen fa bàyyi même bu doon waa russe yooyu leen fa fekk dañ leen di indi ba noppi Te- te- te- te- te- ak lay wu ñu mën a lay nag ay alaaji ay alaaji alaaj suñu réew mi nan la ñuy def ba mu dem alaaj nit ku ñuul soxor na de ay waay jile ay waay moo tax yàlla billaahi ñaar jaw nee na ma yàlla ñaar moo koy moo koy téyeel boppam wërsëg ak ruu gis nga bakkan ak wërsëg ah yàlla da koo téyeel boppam du ko jox kenn
yeneen xéewal yi mën na koy jaarale ci nit wërsëgu nit yàlla mën na ko jaarale ci nit mu wàcc ci loxol kooku ndax ay 10 000 duñ jóge ca asamaan ñëw mais gis nga ñaara ngi nii ca asamaan la ñuy jóge di ñëw rek wërsëg wërsëg ak bakkan yàllaa ko tiyeel boppam di signeel boppam ay décret du ko dénk kenn du ko dé mais alaaji imagineel ma yow tey yàlla bu doon dafa jël bakkan rek dénk ko kenn rawatina ci sénégalais yi man moom li leer ba leer mooy dee naa yàgg na alaaji yow miy faatu nga yàgg na chimère mais dee na yàgg na hein yàgg na nit ki day xëy mere la ni la kii ni ma soofe te xam nga nit mënoo di bëggeel nit nag rek ilaa yow mi din il faut que sax benn jour nga ne ah sama waaj day tey moom vraiment tës bi daal neexuma daal nga ne ko loolu mu ne ma damaa jooy bay bëgg a dee kooku teg nga ko naqar alaaji wallaahi naqar googu nag mu mer ci rek daal di bës bouton ba nga dee waaw te dootoo dekki mu ne def naa lu ëpp de ah waaw moo tax yàlla lànk ne bakkan moo koy téyel boppam rek du ko jox kenn alaaji imagineel ma tey wërsëg yàlla jël ko rek dénkoon ko fi benn sénégalais hein bu la dénkee un milliard ngay caddi caddi jënd ci oto bu dàq bosam sax bu ko neexee mu xëy ronqi sa wërsëg yépp da koy nangu
ngay yelewaan bay lekk sa yére ak ay xob ma ni jaw kay li mu wax téere la hein
yàlla du ko jox kenn alaaji moo tax yàlla yàlla nu yàlla suturaal rek du ko jox kenn yàlla nu nu yàlla jàppale
wërsëg ñaan lu gu rëy gi sénégalais yi nekkee xamuñ ne yàlla ku ci nekk mi ngi la takkal ab ndomba boo xamante ne nii alaaji bu rëy boo xam ne gisoo ko parce que nit ku ci ne bu la yàlla bàyyi woon noonu rek xott rek comme ni mu la sàkkee noonu alaa ñun ñëpp dee nañ yàgg na sénégalais yi boo boo boo bëree ñu bëre boo bëreewul ñu bëre par force la de booy ben am na ñoo xam ne sax trente mille bi ngay am weer wu dee ñu ngi ko siiñ fang. ne kii moom dee rek laa ko yéene. te yàlla xam ne ni seqoo leen dara dara dara lu dul bonjour bonsoir ak ñoo xam ne da ngeen a gisantewul sax bay seqante bonjour bonsoir. te alaaji kooku saay bu toogee. mi ngi ñaan yàlla sab torox tànge rek. te yàlla xam na ne bokkoo leen koñ.
waaw xamantewu leen sa ndey xamul ndeyam xamoo nuñ ko bootee dara nit ki daal nga gis ko nii rek nga ne kii bu toroxul ci kaw suuf rek du ma am.
du ma am jàmm nga koy traqué di ko tongal sonal ko fatt ko toog ci dënnam bi te yàlla xam na ne alaaji kooku yëgul ne sax yow yaa ngi ci moom wallaay yëgu yaa ngi koy yóbbu ci sëriñ jël sa weccet di ko def ci nit di ko rey te yow ca Adama ak Awa ngeen gëj a bokk.
ëpp na ëpp na ëpp na alaaji xam nga loolu foor na ëpp na ëpp na ëpp na ay alaaji fuñ jëm fukki bakkan ak ñaar yi tey buñ desoon ci géej gi ñooñ ca bato ba nekk kii sénégalais alaaji alaaji yowmal xiyaam lan lañ layoog seen borom alaaji lii lan la
déedéet lii nag mooy aaya bi mbang sa talaa kurus.
te kat alaaji ndee sama journée bi yàqu na.
te kat loo ci xamul ñooñu bëggoon a sacrifier ñii am am am am lañ ci jublu de soit soit wut lu neex tubaab yi ñuy liggéeyal ca bato ba soit conserver seen place rek comme moo xam ne xamuñu daañu ko lekkam déet non alaaji soxor am na. ana ñu ñoom ñëwaguñ ba tey ah. si ti ti ti ti ti ti ti ah tegal publicité en attendant ñu ñëw ñu ñëw ci deuxième tës bi. man de alaaji jombi naa alaaji. ay nit ñu soxor.
nit ku ñu la soxal
spécial promotion bu am solo ci 2014 ak Joni Joni waaw waaw lii doo leen ko fekk lu dul ci joni joni mi méngoog li Sénégal soxla ci wàllu yónni wala jot xaalis Joni Joni nee na saa boo yónnee xaalis defal nañu la réduction wu 15 pour cent ci frais d'envoi yi nga doon fay.
ah lii nag xéewal la joni joni soxla bu teew moo ci gaaw
gaa ñaa ngi fàq rek di démissionné de di bàyyi maire bu Thiès gënal tribune yéene kaay ñaar fukk lay jar nañu réew mi day ma ngay tàkk Idrissa daal la kenn gisul gënal tribune yéene kaay ñaar fukk lay jar Cerno Bokum day loolee kon yëngalu ko ah maa la ko wax ma ne jëndal tribune yéene kaay ñaar fukk lay jar ginnaaw tuuma yi nga xam ne nag moom la ay avocat ay dañoo nga yëkkati waaw waa APR day naqarlu nañu kon complot ko gay contre Mimi Touré jëndal tribune yéene kaay ñaar fukk lay jar Bara Sadi tey lay jàkkaarloo kon ak attakat ba dem naa ca lamb ja ama seen day ah ma ngay préparé ay marto Modou Lo nag i man a jëndal tribune yéene kay ñaar fukk lay jar Luc Nicolaï waaw dana defaat année blanche de man a jëndal tribune yéene kay ñaar fukk lay jar
Voici Trafic News.
Trafic News, euh, nous sommes présentement ici au rond-point euh, rond-point donc de la place de la Garette à l'instant fi mu ne nii amul benn jafe-jafe quel que soit le sens où vous venez vous allez faire le tour du rond-point sans difficulté c'est-à-dire que jamono ji dugg Ndakaaru jaare fii ci rond-point bu gaar amul benn xat-xat rawatina yi ñu bàyyeekoo fële nga xamante ne moo nekk boori Sirnos wala ngeen génnee boor rond-point bu Grand Théâtre vous allez accéder ici très facilement Euh, bu ngeen wëree rond-point bi également la progression vers la place de l'indépendance se fait sans difficulté par contre diggante échangeur Malick Sy jàpp ni rond-point bu Grand Théâtre dem rek dikk day daal mais lompoñ ca wet googu abba boulangerie Kappa ay jafe-jafe yu ndaw rek lañ fa seetlu maanaam suñ rek ngay xaw a xaar laata ngay traversé boobu l'intersection auparavant nous sommes passés du côté de fi nga xam ne mooy placement wala bokk fa la nga xam ne mooy arrêt magasin foofu un camion fou a tout ravagé sur son passage benn camion boo xam ne dafa mel ni sax da yaa dagag lu ni mel moo daw rek utali arrêt ba nit ñi xajal foofu mu daal di ramassé yëpp ci ay oto ci boobu la bërëb daal di sax tiré wàccee leen tali bi tax na ba sax amul bu la taw ay dégâts matériel rek moom moo fa am ba sa weesoo bi boulangerie Kappa intersection bu jëm cimetière ba am na ay yéex-yéex mais soo ko weesoo jëm espoir cette voie est dégagée et la gamelle est dara
jaajëf waay Abba ah Gris production vendredi le le 24 Gris Junior Gris 2 ak Boy Remarque seen TV la waaw ah Alaaji man c'est que tës bu njëkk bi moo damm sama alir bi quoi yëngal sama dënd bi yëpp mais nag bon garaawul bàyyi rek xanaa buñ paree bu ñu gisee ku ñu sàppali mbir mi neex ah kenn mës ta gis li deuxième tës bi alaaji benn waaye moo ñëw indi carte d'identité am Sacré Cœur deux ne day loué seize alaaji si maire daal waaj a loué ne seize bu maire ba cinquante seize juróom fukki seize mais seize yi nag buñ ko wëree njortes nañ ne dinañ ko gis xamalu la parce que ay chaise yu spécial la bokkul ak chaise yi nii nii nii plastique yi wala fer yi foire bi waa Iran doon def fii place de l'obélisque fa la femme bi jëndee chaise am yi maanaam chaise yi daal mbindu chaise rafet na lool tarkal la am na couleur waaye nag dañuy may ak chaise yi alaaji luy chaise ba pare dem ak moom mooy soxor gi ñu doon wax rek. non non non femme bi sax nee na xam nga ku toll ni sa moroomu ndey wut ay chaise di luye di daan doole yow nga nekk góor gu ni wéng amoo dara doo def góor gu ni léegi léngaaral ak sa tubéy ñëw di ko triande ah sumeer ana femme bi Sacré Cœur de la dëkk. waaw waa ji dafa ñëw sama kër.
mooy ki ci nekk ci carte d'identité ci bi carte d'identité bi man la ko jox. mu dugg si sonné ñu ubbil ko mu ni ma chaise laay wut ndax am na benn maire buy jaay foofu si angle bi moom mooy wax toujours kuy wut chaise mu ni ko demal ci madame Fall. mu ñëw ci man taseeg man juste man ci buntu kër gi mu nuyu ma ma fay ka mu ni ma cinquante chaise laa bëgg. ma ni Pour nga louer ko ko.
pour ma louer ko ko ndax damay louer chaise. mu ni ma ma ni ko ah cinquante chaise man benn chaise cent cinquante laay louer du ma louer chaise cent franc ndax chaise yi bërki démb si foiru place de l'Obélisque bi laa ko jënde kon du ma ko louer loolu chaise yu bees la marqué gu ma ko tout peinture rek laa ci def loolu moom ña lan la la wax ba ba tax nga tontu ko loolu daf laa wax rek ni la moom ni fa ne ma louer ma chaise Ñaata?
Euh, cinquante chaise mais ñaata la la ko mais bëgg daf ma tàllal cinq mille francs ah ok waaw daf ma tàllal cinq mille ma ne ko man cinq mille yi cinquante chaise yi sept mille cinq cent la nga xam ne ko su boobaa chaise ñaata nga koy louer Sept- 50 francs euh, euh, non cent cinquante la chaise yi benn déedéet moom bu la joxee 5000 la 50 chaise lay doon 100 francs lay doon Eh waaw.
100 francs léegi nag bi ma waxee ni ma euh, sa- jox ma 5000 bi dama ko ni du ma ko luyee ma xool ko ma ne ko man du ma luyee sax 100 pièces mu ne ma effectivement man ki ma bu wax ni may da ngay luyee chaise sax nee na ma boo demee boo amul pièce du la luyee mu ne ma léegi may ma 5000 bi ma dem jëli pièce yi te ñëw daal di dem ñëw jox ma pièce bi mais bi ma ko joxee xool naa ko moom moom mii la bu dul moom di rakkam moom la ndax man magum jëmm laa Ki nekk ci ki carte d'identité nekk bi, ci moom carte moo d'identité bi moom la mu jël mu ñëw ma fekk ma maa ngi solu di dem ci euh, conférence u euh, grande mosquée bi ma ni sama euh, waa kër yi compter leen ko cinquante chaises juste sax oto bi may jël si ñëwagul ma taxaw mu compter ma compter cinquante chaises sama loxo chaises yi jaune la bu am noir ci biir ak weex bu mel bu weex bu weex tàll bu weex tàll ñu ràbb ci diggante yi comme nii xanaa chaise yooyu moom amu fi bëriwu fi non amu fi gisuma ko sax place de l'Obélisque la ñu indi woon ci foire irakien bi yëpp maa ko jënd ah ci nga ko jëndee ci laa ko jëndee yooyu du fi gaaw a am amu fi yu weex comme trait bu weex bii la waaw.
mu chaise yu ngand la mu du yii Waaw.
ak beneen façon bu xam ni yii la ci biir dafa am lu noir jaune bi ba nga ko jëndee ñëpp ñaata la la dikkee woon ba nga jëndee woon chaise Euh, chaise yi man man ci sama bopp presque nekk na cinq lan trois cent xaw ma ñaata mille bare na mais moom cinquante chaise yi rek la jël waa léegi après waa waa léegi mu daal di ñëw daal ni ma euh, jox ma pièce bi dem dellu si waat indi pièce bi xool jox ma ko ma xool ko de vue nii mu niru ma ko ma ne xam nga nit du niru nit de photo du niru nit directement mën nga om dafa xaw a om mais kanam gi moom la ma li daal- om moom?
dafa euh, jeex dafa Ah, sew waaw.
léegi ma daal mais mu njool la 1 mètre 80 bi mu wax moom la Méngoo na ak moom.
méngoo na ak moom ma daal di jël euh, kii bi comme pochette laa amee woon ma dugal pièce bi léegi après moom su boobaa boo la bu joxee joxee carte d'identité bi da lay jox avance wala daf ma jox 5000 deseel ma 2500 mu ne ma léegi taa may ma rek bu ma demee bu demee matin bu may indi chaise yi danaa la indil 2500.
Waaw.
ma ne ko amul problème.
affaire bi ñaata ñaata fan la war a def boo ko loué wala bu heure bu paree rek non le lendemain la ko war a indi dimanche samedi la ko indi jël à midi.
waxuma loolu de bala egseeguñ ci jël bi de dama ni yow buñ la loué chaise boo loué chaise ñaata fan la war a def ak moom benn fan bi nga ko luyee. le lendemain nga koy delloo.
Nga koy delloo.
waaw wax naa ko ko sax. ma ne que le lendemain nga koy delloo si mun mais effectivement man maa ngi dëkk ci wetu jàkka ji jàkka Sacré Cœur bi. si si wetu terrain football bi. presque foofu sama wetu kër la. ma ne que effectivement mu ne ma kon nag demain bu ma koy indi dinaa la indi 2500 ma ne que d'accord. mu daal di dem wuti taxi ñëw yëpp si chaise yi daal di dem. depuis samedi ba léegi gisuma chaise yi gisuma ko léegi ma dem police def déclaration de pa de kii euh, pour def wax ko ñu ne ma da ngay bind plainte ma bind plainte léegi moom mii la. léegi nag li tax ma def lii dama bëgg ñu dénoncer que moom ñu xam ne moom mii la ndax euh, trois personnes def nañ nu ko Sacré Cœur ah bon trois personnes.
waaye moom kii sax man dama cee bëggoon na ñëw yéen loué chaise moom wóor wóor na est-ce que nag tamit ndax xam nga lu tax luy chaise.
loolu moo leen ci dugal kooku c'est la va sans dire Sénégal yëpp ay luy chaise. jigéen boo defulee dara am sa xaalis jënd sa chaise di si daan sa doole ñoom ñoo ngi koy ñoo ñàkk jom rek ndax wel ñàkk jom weesootul jigéen day na sa ndey di loué chaise nga ñëw sol sa daal ñëw ba ci biir këram loué chaise am yóbbu ko jaay am na ku nekk si wetu jàkka ji sans chaise am la ñu yóbbu moom nee na man maa ko tane man jox nañ ma cinq mille moom joxuñu ko dërëm te nee na moom moo génne affaire bi jox ko ko mu ne ko maa ngay dem wuti oto te ñëw le temps que muy dugg di génn ñëw fekk ñu yàpp chaise yi yóbbu ko ba léegi nee na am na keneen tam ku nga xam ne sama wetu kër la ko goro la ci man sax moom it cinquante chaise am pièce bi ñu ko jox dañ ko for moom dafa dem police wane pièce bi ñu ne ko kii def na fi déclaration de perte ni réer la pièce am dafa réer waaw li tax ma ñëw fii pour ñu def ko tës dama bëgg ñu ñu xam ne ñun vraiment ñun sacré cœur waa ji jël suñu chaise yi kii kii xaw ma nitu lan la trois personnes mais est-ce que kenn ke wala ñee ñoom neen lu kenn ki nee na moom ñàkk la ku gàtt la ku niru ñàkk mais man kii man du man magum jëmm la xam naa nit léegi yow chaise lan lañ koy def dañ koy jaay wa ah waaw noonu lañ koy def dañ koy jaay nun koy def te benn chaise par exemple ñaata la la dikkee woon ma nga ko doon jënd benn chaise ñaata benn chaise 4000 lu ma ko jëndee woon dem li ma si doon jënd 150 chaise ñu defal ma ko benn 4000 5000 la waxoon man ko da nga koy wàññi mu wàññil ma ko benn 4500.
dama di ramasser lépp ma ramassé chaise yëpp. waaw d'accord mais mu yóbbu sa 50 chaise mu yóbbu sama 50 chaise.
mais dama ne doon xam ne comme yow par exemple ba ngay door ba nga amee woon projet rek bokk ci bëgg di louer chaise bi nga amee woon projet boobu nga ne peut-être man de est-ce que du ma woon dugg ci ci louer chaise est-ce que yow mu yow sa xel demul ci par exemple man chaise xam nga dañ koy jël rek yóbbu day day déplacé wu est-ce que mënuñ ko jël yóbbu yóbbu ko comme ni mu la dalee te est-ce que yow sa xel mosu cee dem mais xam nga lu tax.
est-ce que dama bëgg xam d'abord est-ce que sa xel mosoon na ci dem ci sama xel déglu ma ndax mës naa dégg benn maire bu nekk Medina nee na dafa yàpp dafa jël doomam sax boolekaat borom taxi bi ak borom kii bi mas damay déglu toujours damay déglu toujours ama kooku sax moom moom moom jëm jëm na loolu waaw moom mais dafa dem ba ca yoon ba génn jël doom ja génne ka sànni ko yóbbu chaise moom loolu la def léegi moo tax bi ma waxee man waaje fu mu nekk war na xam ne ndax bi mu ñëwee di ma wax man dama ne man du ma luye ku ma ku ma joxul pièce ndax pièce xam nga pièce mooy lu nga xam ne dafa sës man nag bi moom bi ma ko waxee loolu te bi ma joxee kii bi carte d'identité bi man xëy na dama ne li tax mu may truandé li li waa ji dëkkul Dakar Casamance Koubalan la dëkk Koubalan la dëkk adresse bi tam Koubalan la fa la juddoo d'accord mais bu ñu ñëwaatee ci question bi dama ne la yow ba ngay jéggi projeté wu pour mën a pour ma di louer chaise xam nga louer chaise ak louer kër bokkul parce que kër déplacé wu comme xam nga kooku mënuñ cee sàcc leen mais bu dee chaise la xam nga yow nit ki xamoo ko day ñëw rek présenté la carte d'identité xam nga ngaa di koy ngaa koy jox sa chaise mu di dem ak moom damay la yow ba ngay projeté pour dugg ci mbirum location chaise est-ce que sa xel demoon na ci ne un jour mën nañ la mën nañ la loolu mën nañ la sàcc xalaatuma loolu ndax xam nga lu tax dama décidé woon man ku ma joxul sa pièce ndax xam nga pièce nit ki boo ko jëlee boo ko yóbboo dinañ la wax ni la fii la wala fii la man erreur bi ma def mooy bi ma joxee pièce bi xooluma adresse bi ndax sama belle-sœur bi ma nekkal dañ ko tudd ci journée Cheikh Named Tidiane bi nekk bi nekkoon ci weekend bi ci grande mosquée man moom laa waroon a àndal oto yaa ngi taxaw nit ñaa ngi taxaw mais man toujours dama am habitude damay xool adresse bi jàng naa damay xool adresse bi bu fekkee ni du Dakar wala du du fu ma xam rek wala tur bi xaw a kii rek dama naan la chaise yi luyee nañ ko ba pare loolu laa daan def toujours mais lu yàlla dogal rek la mais du du sama sàggante ndax man toujours di tien damay damay duma ne dama ne sunu jànq bul engagé man ndayu mbi liggéey Man maay dama defar woo sama bopp, waaw même sunu gardien dama ko ne bul engagé depuis quand nga commencé nekk ci ci location chaise depuis daaw ba ren te problème bi bii rek moo la ci ñu mës a ngi dal may doogay dal looloo tax nag te dafa dal ñaari nit jigéen Sacré Cœur looloo tax man comme maa am occasion wu lii te man moom ci boppam nee naa ko man du ma luy ku ma xamul ndax dafa am waajuy jël chaise u jàmbur yi mun ma i man de taa soxlawu ma lool dama am manifestation rek ci wetu jàkka ji ah waxe nga ko kon wax naa ko barke yonent bi wax naa ko ma ne ko dama am man mu ni ma ma ne ko dafa am waajuy jël chaise moo tax man du ma luyee cent pièces te pièce bi day doon nit ki waaw mu daal ni ma man loolu du sama problème ndax man fii rek laa am manifestation si wetu jàkk ji laa dëkk après dama koy indi kañ lañ koy indi ma ne ko demain Mais la d'accord.
au plus tard demain si ngoon si mu ni ma amul problème le matin sax laa koy indi léegi lan mooy la xool lan nga bëgg léegi ba tax na ñëw fi nga ne li li tax ma bëgg mooy chaque fois damay gis ñu yéen ngeen di def lu xam ni daf ci jaare feeñ wala ni ñu nit ñi yëkka daal waxtaane ko xam ni am na ko xam ne day ñëw comme man ak sama ji moroomu jigéen yi def lii ndax bare nañu dafa am ñu xam ne lii daan sa doole la ñu dew luye ay bâche luye ay tente luye ay yëpp Lépp ci bañ a toog rek.
waaw luye sa ay plate luye yóbbu ko nga jox la pièce bu nga xam ne wala ñu dëkk ay Casamance nga xam nga ni bu doon ndar wala muy Ndakaaru man damay dugg jaar gàddu lii dem ba xamu dëkk.
Chimère tës bu amee nii ay retour ah alaaji mosuma koo dund.
saa ci bii daa mel ni.
kii nee na def nañ ko seen kër. Assane Fall 35 16. kii nee na def nañ ko belle-mère am 50 16 la. Caaroy terrain Orix. kii nee na def nañ ko benn mère ca Géejawaay 60 16. kii woo ma léegi nee na kii def defaa na ko ca Baobab.
baax na.
waaye ka ca Baobab moom carte d'identité ba mu indi déposé ko fa. du bosam de mais borom ki moom carte d'identité bi géejawaay la dëkk alaaji dégg nga loolu.
waaw géejawaay la dëkk.
moo tax ku sa daan dina war def kii.
te xam nga ne ka borom carte d'identité boobu kooku dëkk géejawaay noonu imagineel ma tey police di enquête di enquête ba nañ ko ciix indi alaaji.
àdduna tukki.
ah ne ko ana téeméer wala fanweer wala nangami seesu jàmbur anañu am na ku ma fi waxaat léegi cent cinquante seize.
c'est pas possible.
ah ah kay man Sénégalais yi man daal man jaaxle naa alaaji.
waaye cent cent seize alaaji neexut a gàddu yow man xiyaam de xam naa ku ñu ko gàcce. kuréel kuréel ak moom ndaw diis.
waay waay waay waay ndaw Sile bu ma am lu ko miti dina am lu ko miti nag fii ci kaw suuf waaye na ko miti billa billa gis nga bu feeñulee fii dana feeñi moom dana feeñi falaa budda li njaay doos naan falaa budda dana feeñi de buñ taxawee bu yowmal xiyaamee yaa ngi may dégg triant yu bëree bëree bëree bëri ñu ci bëree bëree bëri duñu du duñu rate tës parce que dañuy xool tamit ñiy dëbb li njaa bu dee ab dëbb jaar na fi ñu ne bii jaaroon na tës bu ma ko dëbbee li njaa tey damay feeñ.
damay feeñ kon roog bu tës dëbbkatu li njaay bëree bëri duñu rate tës dañ koy déglu dañ koy déglu ah sàcc yu bon yi ñu doon lii jàmm la waa kooku lom da ngee ma waaw Mais on me signale là tout de suite Oui.
qu'il y a une dame qui est tombée où ça juste devant, c'est-à-dire sous la VDN. C'est-à-dire elle est tombée, elle agonise et il y a des gens à côté qui essayent de joindre les sapeurs-pompiers. Voilà, mais Wax ko malheureusement, les wolof.
pompiers ni les- la police, non, elle m'accade le nom.
waxal waxal Non, non, c'est ça quoi. Donc c'est dafa am daal maanaam benn jigéen boo xam ne dafa daanu ci VDN bi voilà.
ma ngi fa nag moom di Après di di c'était Saint-Lazare, donc comme kuy dem foire.
comme kuy dem foire quoi ci cimetière Saint-Lazare Voilà.
sapeur pompier yi ñëwaguñ police yi ñëwuñ dara te ndaw si fi nekk ni daanaka nooyeetul nit ñee ngi foofu ñu ngi woo sapeur pompier ñëwaguñ ba léegi ni rek ah ah loolu doy na waar fan la fan la ci fan la ci verre.
Saint-Lazare boo melee ni kuy dem foire nag côté bii waaw waaw waaw waaw.
man day tës yi ñëw tey direct ci ci rajo bii bari nañ de Fabrice sax léegi day indi ay tës waaw d'accord Grand Médine cinquante seize yu verte encore beneen message bi
Ii, Grand Médine.
ñun de suñu koñ gis nga ki fay loué seize lan la suñu koñ day suñu jigéen bu baax bee du suñu yaay jee day ndey saw mi fay loué ay seize ku dof dof lu ba dem fa naan da nga koy jéem a sàcc wóor na yàlla ni de dinañ la rey wóor na yàlla xoolal rek xoolal kii nee na kii nee na bi ñuy ci enterrement wu yaayam bi ñuy denc yaayam am na ku ko ko def encore vingt seize encore.
waaw ah, kii nee na kii itam nee na deux cent seize ak cinq marmite lañ ko dëpp. alaaji yàlla na nu yàlla jàppale rek yàlla na nu yàlla suturaal kii jël cinquante seize yi nii bu yowul xiyaamee nii lañ koy yenee cinquante seize yi. dina ko yenu di yàlla xaw ma nan lay escorter matériel boobu nga xam ne nit ñi dañ koy sàcc xaw ma nan lañ koy takkee.
wallaahi.
waaye dinañ ko yenu de billahi waa ji dina ko yenu nii di dox ñëpp di ko gis ñu naan diwa nga ne ndeke tës ba jàlloon le 22 janvier 2014 Zik FM nekkoon Medina yéen a ngi koy fàttali waa tund yëpp ne waaw ñu ne waajaa nga ne
kii kii nee na ma HLM 30 chaise moom itam.
oho alaaji alaaji li nga wax sànq nag lu am nee importance na ak ay fourne xew.
ma ne da koo def tubaab bu ñuul rek xam nga ruqub Sacré Cœur gee xam nga ne bu nit ñëwoon tey jëlee suñ tund géejawaay gee wala ruqub caaro yi Pikine gee ba def ko fa wala boo ko fay def di nga hésité ndax xam naa ne bu ñu leen bëre topp la laa lay wax nii xoolal 100 mètres 200 mètres ba ne leen nii jàpp la booyee dana la caxat caxatee dóor la waaye gis nga fi ñuy visé ay baaw baab la ñuy visé ay sikaab ay Sacré Cœur dañ naan tund yi moom bu ñu fi sàccee moom balaa ñu ñoo jàpp ñu dem ah dana feeñ de sàcc yi bon sama tëbbin bi alaaji fi mu nekk nii gis nga boo ko fi sàccoon ba dem nii sama yoma la ko yow yowmal xiyaam nii la nii la la ko yàlla di gàllee kaay moom la dégg nii rek alaaj bu ko tayel jege ma nii moom allo waaw waaw koy gis nga voilà kon nii lañ la koy gàllee voilà nii lañ la koy teg foo jëm ñëw nii lañ la koy gàllee rek nii
Amet yaay tuuti nee na nañ wax sàppoon ni leen daan bi ñu bi ñu leen di wax noonu nga ni fan la ci angle bi jëm camp Leclerc.
waaw. camp bi waaw.
yéen a ngi foofu taxaw.
waaw. sapeur pompier waaw ci yéen seen seen action maa leen wóolu balaa sapeur nga ñëw sax ngeen teew. yéenay jàmbaar.
lu seen action defati.
jërëjëf.
defati seen soosu daan noonu ci VDN bi.
ña ngi koy dimbali.
jërëjëf.
alhamdulilah yaay tutee nga fa.
ña ngi koy dimbali.
yaay tuti ñaa nga fa.
ndeysaan. yaay yaay tuti nag nitu àjjana la de.
yaa ko def yaa ko def alaaji xanaa xamoo ne yàllaa ngi joxe àjjana ci nu ne ci façon mu ne kii nga ne lan la lëre neuf mille euros six millions ci benn enveloppe kii wax naa ko fi démb séjour français diggante asalem ak Padoa koo gis na woote ci 77 512 71 50 yaay tuuti de àjjana la jëm. alaaji xanaa xamoo ne nit mënoo di def yenn yi ba pare sa waay ngay dee nit ñi di am sax ci yow xel ñaar. maanaam am na ñoo xam ne ñi ngi def lu baax di dimbali nit ñi yenn xeetu def yu baax yoo xamante ne nii. même suñu xeet wi ne ci ginnaaw noonu sax di di di puus ci oto yeeg raxas ndab yeeg yëpp. ba yomal xiyaamee xoolal ñooy duggandoo àjjana.
waaw. waaw.
xamoo loolu.
waaw seen barke ñin ñëpp ñin ñëpp. ña jàppoon ca ginnaaw nit ñooñee nga xam ne lu baax rek la ñuy yëngu. ña ca toppoon ñañ doon yóbbaale ña ca ne di miir ñiy jañax jañax yi ñooñu ñëpp noonu lañ leen di jël léegi ne leen këmax dugal leen àjjana rek àjjana rek. yàlla noonu yàlla xiir ci def lu baax alaaji.
amiin yaa rabbal aalamiin.
yàlla noonu yàlla suturaal.
amiin yaa rabbal aalamiin noonu yàlla jàppale.
amiin yaa rabbal aalamiin.
alaaji ci xew ngay dem moo xam lu officiel la. wala weneenu ndaje. am na nit ñoo xam ne lenn rek la ñuy bàyyi xel alaaji est-ce que Mansour bi muy yëg escalier yi fa xasaluwul ak est-ce que bu yëg du fa xasalu est-ce que bu yëg du fa xasalu est-ce que bu yëg du daanu est-ce que est-ce que est-ce que maanaam moom daal ci kaw gàttal am na ñoo xam ne lu bon rek la leen yàlla ji moolaale négatif kese jombale ngaa génnee sa gémmiñ gi lu baax
waaye nag alaaji sëgam doomu aadama dem ba antan fi dem ci ay sëkk yu ñuy suule nit ku dee gas bàmmeel di ko dugal ci bàmmeel ngay tafu nit ci bàmmeel fi ñu koy suul ci sëg yi alaaji doomu aadama amul lu mu ñemewul nag ah vraiment ko doon àndal mu dee ñu laxas ko takk ko gasal ko pax mu xóot te xat lool te lëndëm te tàng di ko ci yàpp te mu wóore ni yow des na la def nii nga fàtte ka ñu yeb ci bàmmeel ba di dugal sa loxo di dagg poosu amet ay dara di ko taf allahu akbar ah waaye yow alaaji alaaji sénégalais lu mu ñemewul amul ñii dañoo raatu kan.
ah déet yow nit ki yor sa teraanga alaaji nag nit yor sa teraanga. ci teraanga goo xam ne nekkul ne yow da nga koy liggéeyal di.
du force.
non non non da lay dimbali da lay dimbali rek. boo weer wi dayee wala foo leen daje rek mu nga bël la.
waaw te alaaji foo toog.
di ko xas.
wax ju bon rek nga dëkk ci deram ba xas.
alaaj ñaata nit la ko jot a def.
wallaahi di ko xas.
ah dëkkandoo dana la ko def sa mbokk dana la ko def. ala xam dina la ko def koo dajal ci mbedd mi muy wangar wangari saay boo leen dajee nga mbéj ko jox ko dara te fu mu toog du la waxal lu baax
wallaahi.
alaaj nit ku ñuul soxor na ay nañ ma far. bind kat boo waxoon kenn mëntu mucc.
alaaj am nañu bon yàlla na nu yàlla suturaal kenn mëntu mucc.
alaaj yàlla na nu yàlla jàppale daal yàlla na nu yàlla aar yàlla na nu yàlla suturaal yàlla na yàlla wàccee jàmm ci biir réew mi amiin yaa rabbal aalamiin.
Jacqueline Badiane suma jigéen la mi ngi nekk secrétaire municipal la si mairie bu Asalem maa ngi koy nuyu bu baax alaaj aw la wala ñaareel.
est-ce que du aaw démb démb démb madame Mbaye dañu ma dañuy créer association des des des des des AO du Sénégal. am benn maire itam woo ma ni ma créé nañu association des ñaareel du Sénégal.
non aaw moom baax na moom aaw moom damaa dem sama koñ ñoom jota mbay ak ñee naan ma ay waaye yow nga ne association bi du dund ma ne leen dund na dee na suñu dundoo la dee.
moor ne moor ne la waaw dee na dégg nga loolu alaaji kon yàlla na nu yàlla jàppale yàlla na nu yàlla suturaal yàlla na nu yàlla jéggal yàlla na yàlla wàcce jàmm ci biir réew mi alaaji yàlla na ñu yàlla musal ci pexem noonu rek. dañ koy am nag nañu am ay noonu. waaye nañu fexe daal ba buñ ñu mën a dara rek. looloo jar a ñaan yàlla noonu yàlla jéggal suñu digganteeg suñuy waajur tam yàlla ji gën koo dëgëral ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo ñu jiitu yàlla ji oyofal suuf seen kaw te xare leen ci àjjana yu gën a kaw bi jaay seen wujut ñun ñu fi desit yàlla na salaire yu yokk teraanga yu yokk amiin bànneex gi it noo ne yàlla gën ñoo xiir nag ci moom waaw yàlla ji gën ñoo xiir ci boppam tamit nag ndax ci dolli daal dindi ko man non non yàlla wàccee jàmm te suñu boîte bi lay gën ñoo neex ak suñu directeur bi mu gën a neex gën a ratax du noonu ba bu ñu am envie dem fenn alaaji Simer Diop futur alaaji moo nekkoon ci xarale gi ci waxukaay gi Serigne Ahmed Aïdara Karara ak alaaji Mansour déwén nag alaaji xanaa di nga toog xaar non fas yéene wu ma ko alaaji yow tamit d'accord waaw ok di leen jox kon dig daje suba inshallah